أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون bokk julli ñuy déglu bokk taalibe yi ñoo ngi leen nuyu di leen ziyaara di leen dokkeel di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu tey ñu am yéenay mottali li ñu tàmbali woon te mooy xissa sayidina isa alayhi salaam tan toll woon ci wax ne bi mu amee fukki at ak ñaar lanu mujj a xam ci ay xibaaram leen ba ni mu amee fanweeri at bi mu amee fanweeri at nag la ñëw ci Yaxya ibnu Zakariya ni ko ñenn ci bind ci histoire te war a mën a nekk ndax ak yonente bani Israil la nekkoon ci seen biir kon fa ñuy jaar ngir dugg ci dina yonente am na jaar jëkk ak nubuwaam di ñëw ñu wax ni bu mu amee fanweeri at la ñëw ci Yaxya ibnu Zakariya te mooy Jean Baptiste alayhim assalaam baptise wu ci moom mooy yoon wa ñuy dugge ñoom ci diine ji yoon wa ñuy dugge ñoom ci diine ji moom la ñuy tuddee baptise baptiste baptise mu baptise wu ci ginnaaw bi nag la jibril wàcc ci moom alayhi salaam andil ko ak wax yu gu jóge ci yàlla su borom yónni ko ci bani israil ginnaaw bu mu ko xamalee tawreet ak al injil ni suñu borom waxee ci alquran ni wa yuallimuhu alkitaba wal hikmata wa tawreeta wal injila wa rasulan ila bani israil alkitaba ñaari wax lañ ci wax dañuy wax mën naa nekk alkitaba mbind mën naa nekk mbind mën naa nekk it tawreet li dinañ jublu boo see day nekk rek atfu bayaan yàlla jàngal ko téere bi ak xikma ak tawreet ak lañ jël ñu wax ne téere bi mën naa nekk kitaaba mën naa nekk al kitaaba mbind mën naa nekk it nag ñu tawreet lañ jël waaye boobaa kon day nekk rek xas bu bayaat Isaa bi mu jotee ci wax yu gi ci la génn dem ci àll bi woor fa ñeent fukki fan yoo xam ne dafay tegale guddi ya ak bëccëg yi def ko misaal Isa mi ngi nekkoon ci dëkk bi ñuy wax an nasira te mooy dëkk bi ñuy askanale an nasara yi bi mu déggee ni rey nañu Yaxya ibnu Zakariya la génne nasira dem ñu wax Jalil dëkk ci dëkk bi ñuy wax Kafarnaahum daan waaraate ci tawxiid di ko tuddee malakutullah di woote ni woote ni ci ñu gëm ni yàlla rek mooy buur noonu la Isa alayhi salaam doxe di woo nit ñi ci woote bi yonente yi daan woote ci biir société yahud boo xam ni dañoo wàccoon lool aw yoon tey jàpp ni ñoo nekk ci yoon bari loolu ay caaxaan yu wuute ak sharia bii suñ borom wàcce woon ci Moussa te yonent yi feddli ko ci gannaaw Moussa naka noonu biir seen seen seen diine jooju mu bari loolu ay yàqu-yàqu yu ci dugg laal sax cosaan li tariixa cosaan li diine ji te mooy wàllu xaqida bi ak banqaasi diine ji te mooy wàllu sharia Isa woo bani Israil ci ñu dellu si ci diine yàlla diggantaan te sellalal ko ak jaamu te te defaraat it seen sharia ci yàqu-yàqu yi ci dugg ak soppat yi ci dugg bani Israël nit ñoo xam ne dañoo wàcc aw yoon lool jéggi woon frontière yàlla yi lool xuus lool ci dajale alal yamale ci lu dagan ak lu araam tax na suñu borom jublu leen a mbugal ba araamal ci ñoom lu bari lu lewoon waaye fekk nag leen ko jublu yar rek bokk na ci message te mooy risaala bi Isa doon jàllale jotal bani Israil li suñu borom wàccee ci ñoom ci ay atte yu yees te bokk na ci atte yu daganal lenn ci li mu araamaloon ci ñoom ci sharia Moussa ak yonente yi ñëwoon ci ginnaaw ñu bàyyi xel ni Isa bi mu ñëwee tawret la jëloon di ci àtte comme yonent yi bani Israël yi ñëwaat ginnaaw Moussa yëpp tawret boobu la ñu la àtte woo kon injil dafa mel ni rek aw ñambaas la wu ñëw di am lu muy leeral ci tawhid ci taw ci tawret injil dafa ñëw rek di am lu muy leeral ci tawret ak dolli ci lenn ci dundu ruux gu amutoon fee loolu ñu xamale ko bu baax. kon wàcc googu ñu wàccoon aw yoon ba tax suñu borom araamal ci ñoom ay mbir Isa ñëw am ca yenn nat yoo xamante ni daf ko sottiwaat daganal ko ci ñoom loolu ci suñu borom di wax ci alquran ni fa bi zulmin min allazina haadu harramna alayhim tayibatin uhillat lahum ci kaw toñaangi guñ tooñ ñoom yahud yi ci lañu araamale ci ñoom yu daganoon ci ñoom wa bi saddihim an sabilillahi kasira ak it dëdd gu ñu dëdd yoonu yàlla lu bari wa axdihim riba wa xadnuhu anhu ak di jël riba te fekk luñ leen tere la wa aklihim amwal annaas bil baatil wa aatadna lil kafirina minhum azaban alima ak nag di lekk rek alal li ñu ci ay neen moo tax ña ca doon ay yéefar weddi ña ca doon ay yéefar ci ñoom de waajalal nañ leen mbugal mu tar mbugal mu metti yàlla waxaat di leeral yonente ki Isa googu ni ne nee na leen wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat damaa ñëw ngir dëggal lii ci sama kanam muy tawrat wala uhilla lakum baad alladi xurrima alaykum ngir yëpp nag daganalal leen lenn ci li ñu araamal ci yéen wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum andi leen ay firnde yu leer yu jóge ci yàlla fattaqullaha wa ati'un ragal yàlla topp ma inna allaha rabbi wa rabbukum yàlla bii mooy sama borom si borom fa'buduhu hada siratu mustaqim nañ ko jaamu lii mooy yoon wu jub Isa daje lool ak ñi ñu tuddee ay saduqiyoon te mooy ab kuréel lañu woon ci yahood yi ñu daan weddi bis penc ci injil Matta ñu wax ni yesu dafa doon dox ci wàlli biir jalil di jàngale ci mbooloo yi di déclaré injilul malakut di saafara nit ñi di leen faj ci bépp toot foofu nag la siiwe lool ci biir siri gépp mbooloo yëpp di fàq jëm si ci moom di ko indil ñi nga xamante ne dañoo tawat ñu am ay métit ñu bokkut ñii dañoo am tawat gi mel ne ay rab ay lafañ ñii seytaane jàppale bi lépp mu di leen saafara moom Isa alayhi salaam noonu mbooloo mu bokk ci waa Jalil topp ko ak fukki dëkk yëpp ak Jérusalem ak al yahudiya ak ordon sordan ñëpp topp ko Isa nag ni mu dalee ci kaw saduqi yoon yooyu nga xamante ne dañoo ab kuréel lañu ci yahud yi bu daan weddi bis penc noonu la dalee ci boroom xam-xam yu daan jàngale sharia noonu la dalee ci ñëpp bëri woon di jaamu yàlla ñëpp leen tudd ay sofi yu mooy al farisi Isa mi ngi leen wax leen tuskar ñaan leen yéen jàngalekati sharia yi ak yéen pharisiens yi nga xamante ne ay ñisakat ngeen ndax yéen da ngeen jéggi géej gi wër suuf sépp ngir fàggu kenn ku dugg ci seen diine waaye ku ngeen fàggu ba am ko bi dina yeyoo ci mbugal ci safara dina ci yeyoo lu lu ful li ngeen yeyoo leen yéen benn yoon mu ni leen dafa mel ni da ngeen di tëj bunt yàlla yi ci kanamu nit ñi dugg leen du ngeen bàyyi kenn it mu dugg benn bis neen leen tuskar ñeen leen yéen womatkat yu gumba yi ñu leen yéen da ngeen génnee asak ci li ngeen di bay muy bu ngeen bayee da ngeen génnee dix seen fukkee ko waaye nag li ëpp solo ci sariya yi da ngeen ko mel te mooy ak maandute mooy yërmande mooy ak dëggal mi leen li gënoon a yàlla ci yéen de mooy ngeen jëfandikoo yii te mooy mandute gi ak yërmande ji ak dëggal gi te bañ a neena lee te mooy génne asaka ji mun leen dafa mel ni da ngeen di fekk kaas bi ngeen raxas biti ba mu set biir bi taqrib wala palaat bi ngeen raxas biti ba mu set biir gi taqrib te mooy xeemam teef ngeen fees del mu ni ko yow pharisien bu gumba bi seetalal biir ndab li ba noppi doo ko wax waxi bitti bi bu biir bi setee rek bitti bi daan set te mooy nit ki na daabal xoolam ba mu set mu waa kaw gi lii daal di set Isa ab yamukaay la woon ci dëddu àdduna ndax amul kër amul jabar amul doom amul fenn fu muy dem daan wër rek ci kaw suuf si daan wër ci biir suuf si rek fu mu àgg rek waa leen buñ koy mu jàll ay saa suñu borom jaarale ci ay loxoom lu bari ci ay mu'jizaat yéen képp dëggale ko li mu doon woote muy ñu bu góob ay saa daana fekk ku judduwaale ak ngumba mu faj ko daana fekk ku siti mu faj ko di dekkal ku dee lépp ci kàttu Yàlla ay saa daana defar lu mel ni am picc ci ban bu ci wolee rek bu ko wolee rek mu dal di naaw ci xisasul ambiya bi ibnu kasir mi ngi ciy nett li jële ci abu xusayfa ishaq ibnu bishr mu jaar ci yoon ya muy jaar ba àgg ci kaabul ahbar kaabul ahbar ak waaw ibnu nabbi ak ibnu abbas ak salman al farisi ñu wax ne yàlla bi mu yebalee isa mu andi leen ay firnde yu leer ci ni ab yonent la yéefar yeeg naafiq yi ci bani israil di ci yéemu waaye di ko sabote di ko laaj ni ko diw mi lan la reere bik diw mi lan la denc ci néegam duñ ko ci laaj mu leer leen ko wax na it ci biir loolu wax nañu ni Isa fa mu jëkk dekkale ku dee dafa romb benn bàmmeel romb fa ak jigéen guy guy toog di jooy ay saalaat yi ne ko lu doon lu xew yow soxna si lan moo xew mu ne ko sama doom bu jigéen moo faatu te amoon benn doom bu dul moom ma dalante woon ak yàlla nag ne fii duma fi jóge te du dama ko fekki mbaa yàlla dekkalal ma ko ma xool ko Isa ne ko ndax bu la ko yàlla dekkalalee nga xool ko da nga dellu nga jóge fii dellu ko nga ne ko dañ ko waaw Isa julli ñaari rakka daal di ñëw toog ci bàmmeel bi daal di woote diw jógal bi izni rahmaan génnal bàmmeel bi yëngutu mu woote waat ñaari yoon bàmmeel ba xar mu woote yoonu ñetteel jigéen ñi jóg di fa xar suuf si ci bopp Isa ne ko lan moo la yeexal lan moo la tax a yeexal jóg bi ma la woo mu ni ko bi ma déggee woote bu jëkk bi bi nga wootee woote bu jëkk bi la sama borom yebal am malaayika mu dajale sama bind toggaliwaat ma woote bu ñaareel bi mu ñëwee la sama goro dellu si ci man bu woote bu ñetteel ñëwee nag ma tiit jàpp ne suuf dafa taxaw moo waral sama bopp bii di jaaw ak sama ñaari yéen yi ak sama mari bët dafa rek bis daal di wëlbati ku ni yaayam waaw lan moo lay yóbbu ci nga di ma mosloo dee ñaari yoon nit ki dee nga di ma ko mosloo ñaari yoon yedd yaayam ni ko muñal te fàggoo ab yoon ndax man kat seen àdduna bi amatuma ci soxla daal di ñaanal Isa ni ko yaa ruuxallah yow leeru yàlla gi ñaanal ma sama borom mu dalal ko te jàpp ndalal ma tartali dee mu yombalal ma ko Isa ñaan suñu borom jël ko mu dellu xam ko waaye ba mu ba mu defee loolu lépp ñu gis ko yi nag dañ neex lii ak njabar la rek loolu nag la suñu borom wax ci alquran is qaala allahu ya isa bni mariam ya isa bni mariam uzkur nicmati alayk wa ala walidatik ida yattuka bi ruuhi alqudus yow isa fàttalikul xewal gi ma la defal fàttalikul li ma xewal gi ma defal sa yaay ngir maa dëgërale ruuhul qudus jibril tukallimu naasa fi lmahdi wa kahla ngay wax ak nit ñi ci ba nga nekk ci berso ba lalu liir ak diga dina magum jëmm wa id allamtuka alkitaba wal hikmata wa tawrita wal injil fàttaliku ni maa la jàngal bind maa la jàngal hikma maa la jàngal tawrit ak injil wa id taxluqu min at-tayri ka hay'ati at-tayri bi idni fàttaliku ni maa la defal nga daan bind ci ban lu mel ni njanaaw ci sama kàttan fa tanfaxu fiihi fa takunu tairan bi idni ba ko wole rek mu dal dinaaw ci sama kat wa tubdi'u al-akmaha wal abrasa bi izni wa tuxrijul mawta bi izni fàttaliku nit ni ba ngay yaa daan wéral da nga wéral ku gumba judduwaale ko di wéral ku siti waaye lépp ci sama ndigal di dekkal ku dee ci sama ndigal wa iz kafaftu bani israila ank fàttaliku nit ni maa la sagal bani israil iz jiitam bil bayinaat فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين mooy li ñu waxoon léegi. am na beneen mucjisa bu sax ci alquran te mooy mucjisa taabali lekku dabali dabali lekkukaay xawaar yoon yi ñoo ko sàkku sàkku ci Isa mu ñaanal leen yàlla mu wàcceel leen. ci asamaan si taabali lekkukaay bi ñuy lekk ndab ndab ngir seen xol gën a dal ci ak ngëm ñu gën a am kóol fii ci dëggug yonente yonente ki Isa ñu nga suñu doon wax ci alxuraan is xaala xawaariyuuna yaa Isa ibn Maryam hal yastatiu rabbuk أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ñu bëgg di ci lekk suñu xel dal ñu xam ni yëpp dëgg yoo dëgg la nakuna alayha min ash-shahidin loolu ñu ko seet noonu Isa ñaan ne allahumma rabbana anzil alayna maa'idatan min as-samaa takun lana iidan li awwalina wa aaxirina wa aayatan minka warzuqna wa anta xayru raaziqiin qaala allahu inni munazziluha alaykum yàlla ni leen dinaa ko wàcce de waaye nag fa man yakfur ba'du minkum ku ci weddi waat na bi fa inni u'azzibuhu azaaban laa u'azzibuhu ahadan min al-'aalamiin moo tax laaj ki maan laaj kaawteef bi ci mu wóor di mooy suñu borom dinaan leen ki maan gaa ngi nii waaye su ma leen ko woonee nag firnde ji leer nii da ngeen weddeete nag mbugal daal di ñëw këpp ci biir mbugal leen mbugal moo xam ne moo ko mbugal kenn seen Ibnu Kasir nett li xibaar yi wàcc ci wàllu taabal jooju jël ci Ibn Abbas ak Salman al Farisi ak Hamad ibn Yasir ak ñeneen la mu ca leeral mooy ni Isa alayhi salaam dafa digal xawaari yoon yi ñu woor fanweeri fan bi mu mottilee fanweer yi nag lañ ko laaj laaj lañ ko laaj ñaan lañ ko laaj laaj boobu mu wàccee leen taabal taabal ndabal lekkukaay ci asamaan si ngir ñu lekk ci seen xelit dal ci ne yàlla nangu na seen koor wuyu na it lañ doon ñaan bu boobaa it mu doon ak feet goo xam ne dañ ci feetu ci seen bisu korite seen bisu korite mooy nu di doon naa ko yóbbu na watat may na kulo gën a waaye Isa waar leen alayhi salaam ngir ragal rek ni buñ leen ko wàcceelee duñ mën a matala ak ak xam ci sant sant ga ca war waaye rek ñu sax ci ni ko rek na ñëw taabal ji daal moom bëgg nañ ko def noonu Isa dal di jóg biñ ci dogoo sol ay yére yu ràpp daal di rangale ñaari tànkam daal di sëngeem daal di jooy trox lu jëm ci yàlla ñaan suñu borom mu wuyu leen ci lii ñuy sàkku yàlla wàcce taabal ji nit ñi di xool muy jege si ndànk par ndànk saa bu jege rek Isa ñaan yàlla mu def ko yërmaan te bu ko def muy mbugal def ko muy barke tey jàmm noonu lañ ñëwee ndànk moom taabal ji di wàcc si ba wax ba wàcc ci kanamu Isa alayhi salaam ñu muuree ko ab sarbet Isa muuri ko wax ne bismillahi xayri rasiqin mu ko muuree juróom-ñaari jën moo ci nekk ak juróom-ñaari mburu am ñu ne vinaigre moo ca ak rommaan ak yeneen meññet mun leen bisimilah lekk leen ñu lànk ni ko xalaat yi ko duñ lekk mu kut dangay lekk ba noppi mun leen yéen a ko jëkk a sàkku konte yéen lekk bañ bañee mu digal fuqaraaw yi way ñàkk yi ak way tawat yi ak way lompañ yi te jege woon nañ junni ak ñetti téeméer ñu lekk ca waaye ku ca lekk rek bépp taw bi la daal day daal di wér te nag ñi lekkutoon am ak rëcc lool ci ñàkk gi ñàkkoon a lekk kon Isa ay mujisaatam li ci gën a fës génnut kon sos ak dund delloosi ak dund ak delloosi jàmm ci yaram bi ñetti mujisa yi yooyu gën a fës ci mujisaati Isa sos ak dund te mooy bind ci ban defar ci ban lu mel ni am am picc wol ko mu daal di naaw kon foofu dafay sos ak dund lu amatul ak dund ko dundal delloo si ak dund mooy fekk ku deewam di yàgg mu julli ñaar raakaa ni ko xum bismillah mu daal di jóg ak delloo si jàmm ci yarami nit ñi yarami ku tawat te loolu ba tey aw xeet la ci sos ak dund rek aw xeet la ci delloo si waat ak dund kon ñett yi moo gën a fës ci mujisaat yi Isa dal feeñ gannaaw bi mu liggéey ci ban lu mel ni picc wol ko mu daal di naaw mu daal di nekk am picc bismillah kii ab néew la mu woo ko mu wuyu ngir ak dund moo def ci moom mu mel ni kon mujisaat yëpp ci xeetu daaw li mu doon def la dañoo nuroo dafa xeetoo ak li mu doon daawa ngir li mu doon woote moom mooy tarbiyatu ruux dundal yar ruux ak gëm bis penc gëm ni am na beneen bis buy ñëw te lépp lu ñu defoon ci rafet danañ ko wuti fay lu ñu defoon ci lu ñaaw danañ ko wuti fay kon lay xikma ci mujisaat Isa ñëwee ci xeet wii lenn ci borom xam dañ koy dañ koy illaal di wax ne lay sabab bi dëgg-dëgg mooy xeetu mojisa wi dafa xeetoo ak waa jamono ak ñun jamononte ndax ñoom da caa am kuréel bu daan wet di bis penc muy sadoo xiyam yi di wax ne mënta nekk kon dekki la ñuy wet bi mu dekkal nit seen kanam ñu jëf bañ xam ni kon bu leen ko yàlla déggee ni dina ko bële li am na mu wax nag ni noonu la yonente bu ne naka noonu yonente bu ne ay mujisaatam dafay dikke ci lu xeetoo ak waa jamono jëm jamonante noonu la ñu waxee ne Moussa alayhi salaam dafa jamonte ak ay nit ñoo xamante ne ay njabarkat lañ doon ñu ñaw ci ak njabar Isa Moussa andil leen lu leen jommal lu raw lañ doon def fuuf ndax wóor na leen ne li ñuy def nag xam nañ ko ak njabar la am nañ ci ab expérience bu leer xam nañ lim mën ak lim mën buñ gisee mbir mii Moussa def mu weesu li liñ doon def ñoom liñ xamoon ci njabar danañ xam ne mbir mii kat jógewul fenn fudul ci yàlla muy am kàttan ci lu mu mën a doon moo tax ñu daal di jébbalu ca saa si ñoom borom doole kat yooyu ci biir bi tamit naka noonu Isa bi mu ñëwee ci jamonoom fekk fi ay ñuy jongante ci mën a faj wàllu médecine mu andil leen ay kawteef yoo xamante ni xamul fees di jaar pour àgg ci seen dépassé ndax kat faj aggutoon ci faj ku gum ku judduwaale ak gumba agguloon ci it faj ku siti mbaamu gaan waxuma la nag fekk ko dee ñu di ko dekkal noonu moom seen xam-xam seenu ko woon fenn bi mu ko defee nag mu nekk moo su boo xam ne day tegtale ni moom nii kat li mu leen di woo dëgg la waaye di tegtale it nag kàtt na yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom itam bi mu ñëwee dañ ko yónni ci jamono boo xam ne arab yi dañ daan jongante ci fasaaxa ak balaaxa suñu borom wàccee ci moom alquran joo xam ne ab yamukaay la ci balaaxa ab yamukaay la ci fasaaxa mu bàkku ci kaw nit ak jinne ci ni leen bu ngeen mënee indi lu ni mel dikk indi leen ko wala sax fukki saar te képp sax bu ngeen fukki saar yu mel ne alxuraan boobu mën a indi leen ko wala sax benn saar képp bu mel ni alxuraan bu ngeen ko mënee indi indi leen ko ba mu dogoo ci ni leen tayit du ngeen ko def defu leen ko woon te du ngeen ko def ko mukk du ngeen ko mën te du ngeen ko mën ba mukk fa in lam tafaalu wa lan tafaalu mooy defu leen ko te du ngeen ko mën def mukk ba mukk fattaqu naar allati waquduha naasu wal hijaara kon moo ji sab yonente bu ne day xeetoo ak la waa jamonoom diqante woo gën caa jëng jëm mu ñëw indi ca lu leen raw lu raw seen xel loo xam ne danañ ci xamin lii kat lii mu leen di woo kon dëgg Isa bi mu saxalee mboolem lay yooyu firnde yëpp mu andil leen ko ñu gàntal rek mu taxaw nag dama bëgg a xam nag ñan ñoo may jàppale ci woote yàlla bi ñu woote falamma ahassa Isa minhum al-kufra qaala man ansaari ila Allah noonu qaala al-hawaariyuun man ansaaru Allah aamannaa billah wa ashhadu bi annaa muslimuun léegi ñun ñi ñooy dimbale ñooy ñii ñi day encadré jàppale ci yoon yàlla séeréel mi ñi day ay muslimoon la waaye nag bëriwuñu woon moo tax suñu borom wax ni ab kuréel wuyu na ko waaye ab kuréel lànk moom la suñu borom di wax ci alxuraan yaa ayyuha alladina amanu kunu ansaaran lillah كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون من انصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين حواريون ينك بن يوحنا فكر الوزنار موي سيمون ميدان كوي بطرس بطرس بطرس موي بيير ak mbokk mu wax André ak ku ñuy wax Jacques ak mbokkam ñuy wax Jean ñuy ñaari doom yi Zébédée ak ku ñuy wax Philippe ak Barthélemy ak Thomas ak Matthieu ak Jacques ibn Alphaeus ak Thaddée ak Simon tamit wooye le nationaliste ak Yehoda al Iscariote te mooy Jude Iscariote fukk ak ñaar yooyu dañuy wax ne ñooy xawaariyeen yi encadré woon Isa mu jàngal leen diine wan leen yàlla ñu doon ñu jëddu adduna mu yabal leen ci kuréel yi nag ñuy woote ñu faj di def mboolem di Isa daan def ba di jàllale daawa bi di dugal mbooloo ci biir kon Isa sax na ci seen biir di woote di woote di woote di teral woote bi di leen won wàcc bi ñu wàcc na aw yoon ñoom ba léegi sax sax seen ñii ay kaana lañ mooy prêtre yi ñii ay bindkat lañ ñii ay pharisiens lañ ci mooy ñi ñi ñi nga xamante ne dañoo beru rek di jaamu waaye ñoom ñëpp wàcc yàlla mu leen teg laaj yàlla di leen delloowaat ci yoon wu jub wa di leen digal ak tegu ci aw yoon di leen leeral it li yàqu ci lii ñu nekk di ko dund ba mu génn zane wu ci moom kon foofu lañ jóge nag taxaw ci sàkku ko faagaagal man Isa alayhi salaam noonu borom. kilifa yi yahudi yeeg ba seeni borom xam-xam daje daal di wax li ñu yàq mu yàq li ñuy ragal mu yàq diine ji nit ñi di ko topp ku ñu wax Kayaafa te mooy kilifa prêtre yi di leen benn nit kenn nit ku dee daal moo gën peuple buy bu bu buy dee peuple bu buy dem sànq kenn nit moo gën sànq peuple bi ñu daal di dogu nag ci ray ko daal di koy jaxase ak commandant wala buur bi nekkoon Romain rafetalal ko seen njàmbat lool melal Isa it ci wootet Isa ñu ñu wone ko ko ci melaw politique ni ko dafa bëgg abolir dafa bëgg yàq nguur nguur gi daaneel état bi wax yi wax ni Isa dafa woote ne mooy buuru yahudi te loolu lay déclaré moom lañ continuer di sonal xaakim boobu kilifa googu buur bi bayan ko ci mu gën a benn décret ci ne nañ ko rey seleb ko te loolu moo yom yi daan jaar ci ku ñuy àtte pour rey ko Isa bi mu xamee ni ñu ngi koy fexeel mu xam it ni buur bi dogu na ci rey ko la làqatu ba soldaay policier yi nga yi koy wër yi nga xamante ne ñooy policier yi buur bi duñ xam fu mu nekk noonam yi ko noonu ci yahud yi ba di ko jaxase duñ xam fu mu nekk noonu ñu wax ne Isa dugg si Jérusalem war wenn warum daam ay àndandoom teeru ko mu ni leen kenn ci yéen ci ñii lekk ak naan ànd ak man di moo may jaxase moom mooy boole moom mooy boole moom mooy boole moom mooy feeñal noonu Isa bëggle na ci feeñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Isa daal di tàmbali dénk ay àndoom dañu wax ni leen limite bi bi biñ limité leen doomu mbindeef pour mu jël bi jot na maa ngi dem nag te fa ma jëm du ma fi mën a egsi waaye wattu leen dénkaan bii ma leen di wax am na ku ñuy wax Paraclet dana ñëw ab yonent lay doon ànd ak yéen bu ñëwee dana leen andi leeru dëgg te dana ma seere li tax ma di leen wax ni nag bëgg ngeen fàttaliku ko bu jamonoom ak si wax naa leen ko man nag damay dem dellu ca kama yónnoon waaye leru dëgg googu de bu ñëwee lépp lu dëgg dana leen ko woon te dana leen ay xibaar ay njëriñ yu sori dana ma tàgg nag waaye di bett na bi ma gisati Isa noonu la waxee wax jooju waaraat daal di siggi teen ci asamaan si daal ni waxtu wi jot na teral naa la ci kaw suuf jëf ji nga ma digaloon ma def ko it matal naa ko moom la suñu borom di nett bi ci làmmiñu Isa ci bégle gi mu doon bégle wala gi mu doon wane yonte dina ñëw loolu nag lay xaan wa iz qaala Isa bnu Maryam yaa bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min attawrati wa mubashiran bi rasulin yatihi min ba'di ismuhu ahmad yéen bani israil man de ndawal yàlla la lu mu yónni ci yéen may dëggal li ci sama kanam ci tawreet waaye di leen dëggalit ci yonent boo da ñëw sama gannaaw mu tudd ahmad isa daan wax kooku mu daan dëggle ne dana ñëw mu di ko tudde isa an nabi isa masiya isa mu di ko tudde faaraqlit mooy parakletus paraklet nag dañ koo arabal waaye baat baatu yunaan la baatu grec la grec pri pri prikiltos la prikiltos aw làkkam buñ ko doon firi ci làkku yunaan dañuy wax ni mooy turu Muhammad wala Ahmad parakl parakli paraklitos paraklitos mooy baraklit am na benn téere bi wax mahal ambiyaay fi alquran mi ngi wax ni benn borom xam ne wax Abdul Wahab an Najjar mi taalif xisasul ambiya téere bu ñuy wax xisasul ambiya laaj na docteur Carlo Nalino mu nekkoon benn mustashriq bu dëkk Italie laaj na ko baatub priklitos bu bërës boobu yi nga xamante ni moom la ñuy wax lan lay tekki dëgg mu ne ko labbe yi dañuy wax ni baat boobu li muy tekki mooy almuhasisi mu ne ko laaj moo ay labbe docteur Carlo Nardino laay laaj te dafa am doctorat ci lettre ma koy laaj baat bi lan lay tekki mu ne ko kii nii baat bi li muy tekki mooy koo xam ne dañuy sant sant bu bëri mu laaj ne ko ndax dina dëppoog afaalu tafdil ci Hamida mu ne ko tigi mooy afaalu tafdil ci Hamida mooy Ahmad ci injil Jean Yohanna ci paasu trois cent dañ ci fekk mu wax ci ni indi kalaamun kasiirun aquluhu lakum baad walakinakum laa taqdiruuna an taxtamiluuhu wax ju bëri yu ma yu ma leen bëgg a wax waaye nag ma attanu leen ko léegi fa mata jaa ruuxul xaq arshadakum ila alxaqi kulli yéen leer bu dëgg nga ñëw nga xam ne bu ñëwee de lépp luy dëgg naa leen ko woon li annahu laa yatakallam bi shay'in min indihi ngir waxul daal lu ñu bàyyi ko bàyyi ko ci moom bal yatakallamu bi ma yasma lépp lu mu wax lu mu dëgg la wa yuxbirukum bi ma sa yahdus lépp lu nar a xew dina leen ko jaral sayu ma judi te it dana ma dana ma teral noonu leer na lool ci alquran teral gi nga xamante ni yàlla teral na ko isa ci làmmiñu yonent ci ci ci alquran ci làmmiñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy wajaalani mubarakan ayna ma kuntu yàlla daf maa def may fu ñu barkeel moo ma nekk te fekk ñeeñu ñu ko daan tuumaal di wax si um ñaaw waaye alquran dafa taggi isa ci hadis yonent bi it sallallahu alayhi wa sallam wax na ci ni képp ku juddu seytaan dana ko laal tuur ko mu jooy ba mu des Isa ak yaayam kon tagg na ko ay tagg yu bëri bëri yu bokkul ba demee ci kitaabu téere bi ñuy wax al-bidaaya wa nihaaya ibnu kasir taalif ko ba tey maa nga ca wax ni ishaq ibnu bishr wax na ne jël nañ ci ibnu abi uruba mu jële ci xataada mu jële ci muxaatil ak xataada ak muxaatil jële ci abdurahman ibnu adam mu jële ci abu hurayra radiallahu anhu mu wax ni yàlla dafa wax yow Isa ne ko yow Isa farlul ci sama mbir te bul ci doye bi te nga déglu te topp yow doomi aji laaj bi ndax yow di dangaa judd ci lu dul way jur wu góor maa la bind ngay kiimaan ci mbindéef yi maa na nga ma jàmm man képp te wak te sukkandiku ci man man képp na nga jël téere bi ak doole te firil ko waa suryaaniya jotalal leen ni man mii maay aji dëggu ji maay aji dund ji maay kii taxaw te du maa fi sax dàkk du ma fi jóge bu mukk na ngeen dëggal yonente bi nga xamante ne ab ummi yu lay doon te mooy koo xam ne jàngul ab arab yi yu lay doon ci arab yi la bokk muy borom gileem di ko dàkkantele borom kaala gi di ko dàkkantele borom bu mu kom di ko dàkkantele borom di ko wooyee borom ñaari dal yi di ko wooyee borom yar mi mu doon ku rafet ñaatu ñaari bët doon ku ratax ab jë doon ko doon ku ku ku leer ab leex ay leex doon ku rankaloo kawar doon ko fatt ab sikkim doon ko ñu lëkkale ñaari yéenam doon ko mënóoral bakkan doon ko am sàkkale yàlla doon ku feeñ kawari an an faq an faq na mooy kawar yi nekk ci doon kii suuf ni dafa feeñ suñ feeñ moom lañ bëgg a noonu la ko ko misaale ba ni ko taxe ñeel na ñi dab ñi fekke jamono tuuba liman adraka zamanahu wa shahida ayamahu wa samia kalaamahu texe ñeel na ki dab jamonoom fekke ay bisam déglu ay wax bi mu ko waxee baat boobu Aysa ne ko yaa rabbi wa maa tuuba lan mooy tuuba mu ne ko tuuba day njëmbatul garab la loolu maa ko jëmbat ci sama loxo mu tasaaroo ci aljanna yépp la fu ci naa banqaas na fa dugg ci aljanna waaye cosaan li mi ngi nekk ci Ridwaan ndox mi koy nandale mi ngi nekk ci tasmim mooy bëtu aljanna mu sedd ba mel ni sedd kaafoor cafka ga it cafka gileer la xet ga it xetu misk la ku ca naan benn naan képp yi dutu mat ba mukk ay sànni ko yow sama borom dooma ci manta dooma ci may ma naan mu ne ko dafa araam ci yonent yëpp ñu di ci naan jëkk yonent boobu di ci naan dafa araam ci xeet yëpp ñu naan ci jëkk xeetu yonent boobu naan ba noppi ginnaaw bi suñu borom wax Isa ne ko man nag dinaa la yëkkati yaa Isa arfank ilay dinaa la yëkkati nga ñëw fii fi man jëm si ci man mu ne ko yow sama borom lu tax nga dama yëkkati mu ne ko dama lay yëkkati wàcceewaat la ci mujj jamono ngir nga gis kiimaan ci xeetu yonente boobu ak nga dimbali leen ci xeex ak ku ñu rëbb ka te mooy ad dajjal fenaakoon ba nga xamante ni dañu ñëw ngir yàq ñu ko nag dinaa la wàccee ci waxtu julli waaye boobaa nag doo leen jiite bi ndax aw xeet lañu wuñu yërëm te it ab yonent du ñëw ginnaaw seen yonent xisaam ibnu amaar wax na ni wax na jële ci ku ñu wax walid ibnu muslim mu jële ci abdurahman ibnu zayd mu jële ci baayam mu wax ne isa dafa waxaat yaa yaa borom ni ko yaa rab dama bëgg nga xibaar ma dëgg dëgg xeet wuñu yërëm wii mu ne ko ummatu ahmad la ay boroomi xam-xam lañ ay boroomi xikma lañ dañoo mel ni ay yonent danañu doy loolu néew ci sama may waaye may itam lu néew ci ay jëf dinaa ko doy loolu ci ñoom dinaa leen tàbbal aljanna ci baatu la ilaha illa allah yow isa ñooñu ñooy ñi ëpp ci waa aljanna ndax seeni làmmiñ bi ñu mu mokke ci baatu la ilaha illa allah yenn làmmiñ ci mos koo mokke ci wax la ilaha illa allah seeni loos ni mu mokke ci ci sujjóot rot di sujjóot yenn loos musta mokke noonu ci rot di sujjóot kon loolu mooy sifatu sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam ci ni ko borom xam-xam yi ëndee ak ni ko isa fàttale woon nit ñi dénk leen ko dénk ko ay nitam kon nag day taloon Isa fan la yem moom Isa sayidna mo sayidna Isa al islam ñu wax nag Isa dafa wéy ànd ak ay taalibeem ci béréb bi nga xamante ne fa daan dajaloo moom ñu muy àndal Yahuda al Isxariyoti te mooy Jude Juda Iskariyot kenn ci xawaariyoon yi la moo xam béréb boobu Isa di nekk moo ko tegtal police yi ko doon wër ci ay luy toll ci fanweeri dërëm yu ñu ko jox rek ngir mu wone ko waaye ba ñëwee ba ba policier ak si war koo jàpp lañu wax ni moom moom yi leen tegtale Isa moom la suñ borom def mu niiroo ak Isa ñu teg ko ba ñu jàpp ko moom lañu jàpp yóbbu jàpp ko yóbbu ko moom lañu sërëb jàpp ne Isa lañu rey sërëb ko yàlla yëkkati na Isa ci jëmee ko ci moom loolu mooy li sax ci alxuraan kon bu ñu saxaleen duñ ko rey sërëb ko denc ko yàlla li mu saxal mooy rëyuñ ko sërëbuñ ko wa maa qataluuhu wa maa salabuuhu walakin subbiha lahum kon loolu mooy xaqida bi nga xamante ni moom la ab julit war a jàpp kon Isa Maryam alayhi salaam bi ko suñu borom di yëkkati mi ngi am fanweer ak ñett kon diiru bu woote bi daal mi ngi toll ci ay ñetti at lam doon jàngale it génnit ay bi suñu borom wax inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itaa'i zil qurba dinaa bu woote tawxid woo leen ci gëm bis penc li mu leen di digal mooy lépp lu baax julli daana ko digal koor a sadax sadax sadaxe te di ko nëbbu waxul it bëgg sab xarit bañ sab noonu waaye bañ bëggal sab noonu la wax Isa daana wax ne da ngeen dégg ñu di leen jàngal ne na nga sopp sa xarit te bañ sab noonu man de li ma leen di wax mooy na ngeen bëgg seeni noonu te di leen ñaanal sax te ñaanal sax ñi leen di bunduxatal na ngeen leen di ñaanal lu wax di tere it njaaloo ak xool jàmbur bu jigéen ak mer ak fayantoo lii mooy li gën a fës ci li mu daan jàngale alayhi salaatu wasalaam kon leçon bii ñëw bu soobee yàlla nañ ci waxtaan ci wàllu anaajël yi injiilu Isa la alxuraan tudd ñoom am na ñeenti anaajël nan la demee dëgg-dëgg te nañ ci waxtaan jeexale ko Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf